la 2STV ñu di bëggee bu baax baax di leen siyaare di leen kontaane di am mbégte ak kontaante di jàkkaarloo ak yéen ci la 2STV ci Bantamba mbokk yi tàmbaliwaat nañu ko tàmbaliwaat nañu ko fi nga xamante ne ni fii la ñu koy tàmbalee saa su nekk ci la 2STV ci Bantamba tey nag ñu ngi ci rue bi nga xamante ne ni moom moo jëm immeuble Ablaye kii faat Fat léegi immeuble moo den ak 2STV làmb xanaa rey naa la mbokk yi bantamba bi noonu lañ ko commencé tey nag dañuy def spécial spécial bi ñuy def parcelle la ak Pikine li tax parcelle la ak Pikine amaa Baldé ak Modou Lo boo xamante ne nii dafa war am ndax moo am na fu mu war a mën a yóbbu làmb combat la boo xamante ne nii dafa war a am parce que dafa am fu ñaari mbër yi jaar te it làmb soxla seen daje ñoom ñaar mbokk yi ci la 2STV nit ñi dinañ ci jox seen joxe seen xalaat di ngeen dégg ñaari mbër yi ku ci nekk. amoon na ay wax yum ci waxoon loolu yëpp 2 dina ko génnewaat di ngeen dégg nit ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy amateurs yi les sénégalais ñu joxe ci ñoom tamit seeni xalaat ci biir Bantamba lay ak la 2STV Mamadou mbay yëngal gësam kii sama copain la. na nga def même gerte. gerte mel caama la. mel caama ah, ak mun gerte. yaa ngi am jàmm. la Abdou bu Modou Lo. Abdou bu Modou waaw. Modou Lo Balde. loolu combat la. Modou hmm. Lo da ko war a jël bëre ak moom. Hmm. waaw. yow Abdou bu Modou yaa wax loolu. waaw Modou Lo da war a jël Ama moom. Balla Gaye jël Boy Niang moom. Sa Thiès jël Reug Reug bëre moom. ay eh, yow loo jaay. maa ngi jaay maa ngi jaay cu cuuraay app famille laa jaay buy bii rey yooyu di ray weñ yëpp lay. rey mbóot. ak ak ak yëpp lay rey waaw. jaay. yaa am jom noo tudd. lii. noo tudd. maa ngi tudd Ahmed Diakhaté. Ahmed Diakhaté taxawal waay. waaw Ahmed waaw. affaire yi mbaa mi ngi jar. et moom temps yi affaire baa ngi dox mu ngi mu ngi ñoo ngi ciy ñoo ngi ciy bopp baax a baax a baax a baax. Hmm. waaw. foo dëkk yow. maa ngi dëkk Louga Louga naa dëkk wante man wante maa ñëw fii di jaay ci maa ngi nekk Tëngéej naa nekk. Hmm. waaw. ku sa mbër. sa ah champion bi Balla rek. Hmm. waaw. Modou Lo Ama Baldé loo wax. mo mo Modou Lo ko combat moom. waaw. combat bu neex la. bu neex la moom ku ko tëgg moom combat combat combat bu neex lay am moom. waaw waaw kontaan naa xam nga lamp bu 2STV. ah ban waaw bu nekk Bantamba Bantamba mooy Bantamba. yow bu dootuma la laaj lamp nga may wax waxi Bantamba. Ah. naa la waaw mais damay wax lu may wax ba pare ma doo ko wax. waaw waxal ci loo ne. sant yàlla lépp jaam yaa ngi cool. cool taw fi Modou Lo Ama Baldé. Modou na ko yàlla may ndam. combat bu war am bu war a am la dafa war a taxaw ndax man Modou Lo mooy dama ko bëgg. te dafa am fu mu war a mën a yóbbu làmb. bu baax a baax a baax a baax loolu mooy combat jamono jii Modou Mbaye Modou Lo yàlla na ko yàlla may ndam. ba tey si biir Bantamba la. barke Rasulaay. eh eh taximaan. taximaan Pikine. taximaan Pikine. jeex na amul leneen Modou ci wax. Hmm. amul benn amateur boo xamante ni waxul ci loolu ñëpp ciy wax. est-ce que làmb boole na leen. boole moo leen dafa rampé yegg si Modou jàmbaar la kenn waxatul loolu mais Ama Baldé kenn du moom Modou na jël combat bi. Hmm. ñu finaliser affaire bi jeex. Euh, que le yàlla tere. Hmm. Ama Baldé jël ndam li <laughs> noo tudd. man Ousmane Diané laa. yaa baax sa taxi man sa taxi bi man bëgg naa ko macha allah. sa taxi bi taxi bi yéeg nga ci ba taay. ba taay lii la taxi man da ngay suluisee di sañsee sa taxi rafet di xëy lu neex mais am na taxi yoo xam ne na nga def. waaw maa ngi fi. yaa ngi si jàmm maa ngi jàmm alhamdulilah. Modou Lo Ama Baldé. ah Modou sama mbër na ko jël tëj lamiñ booy bi. waaw. yow loolu nga gis. wallaa gis kay na ko jël tëj lamiñ booy bi. tëj laa ma ñam rek. waaw def ko 2-0 comme daan daan na ko mbaa kay. Hmm. na ko jaa daan na ko. ci biir Bantamba lay xewee ba tey wax naa leen ko man la ak yéen xeex bi du jeex mbokk yi làmb dafa am fu mu toll. làmb bu njëkkaan bu soxlawaan ay bés yu mag wala bu njëkkaan bu amaan tolluwaay fu mu tollu promoteurs yi dañ daan génn sponsors yi ñëw ñu jàpp ci. làmb am fu mu yegg waaye mbokk yi fi toll seetlu nañ ne sponsor daw na ci làmb seetlu nañ ne promoteurs yi sax déggaguñ leen ñu wax lu bari ci combat yi nga xamante moom moo war a am. te combat ngi boo xamante ne ni moom rek moo mën a jaay làmb ndax ñaari xale yi nga xamante ne ñoom lañ ci yaakaar muy Ama Baldé ak Modou Lo combat la boo xam ne bu neex la li ko waral seen ginnaaw li ko waral seen dugg si ci làmb ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk dafa am jaar-jaar ci làmb mbokki dama leen di njëkk a may Modou Xarañ Lo tàmbaleem ñu comp ci rek ci tuus yi ci combat yu neex yi ci xeetu bëre ba ci fulla ja fayda ja ba ci xarañ gi après ma ñëw ci sëll bi mbokk yi ñu dem ak Karajo. Sitor wax na dëgg kenn ko sonal sifle na Modou Lo nen bi waaye Khadim Diallo xaaru ko fa Khadim Diallo daw na jël na Modou Lo Modou Lo rok énergie Khadim Diallo pulaa ko Modou Lo sànni na ko xale bi bëre la man seen Aliou noonu ko bëgg ko wéele waaye waaye Mor daj na ay ndeysaan ah waaye prise yi bari na waaw waaw Mor na ko daje nanu xale yi dañuy xeex Modou jël na ko Modou jël na ko Modou Lo dóor na ko mu daanu dóor dóor na ko mu daanu Modou am na ngemb ñaari loxo yi am na ngemb yëkkati na na daaneel na daaneel na Modou Lo na daaneel na Paul Maurice songoo la bëgg songoo Lo xeex lay def tey Modou Lo dafa man bëri songoo Modou xeex lay def Modou jël nañ tànk ba Paul Maurice jël na tànk ba ñoom ñaan ña dem ca suuf ña ngay bëre Modou Lo Paul Maurice ña ngay xeex bëre bu rëy la ñu bëre ña ngay bëre na ko oh! Modou Lo daan na ko waxoon naa la ko Modou Lo daan na ko waxoon naa la toujours ci suuf la koy teeru ñoo Kayra Kayra na Modou Lo Kayra dóoraat na Modou Lo moo yaa ngi bëre Modou na ko mu daanu Modou Lo na Kayra mu daanu Baye Mandione ak Modou Lo jël na ko jël na ko Baye Mandione ak Modou Lo génnaat na la ilaha illallah ñi bëre bëre bu rëy ñi ngi bëre bëre bu rëy caxabal ba caxabal ba Modou Lo caxabal ba Modou Lo war na ko dab war na ko dab Modou Lo daan na Baye Mandione Modou Lo daan na Baye Mandione Modou Lo daan na Baye Mandione Modou Lo daan na Baye Mandione jàppante nanu jàppante nanu yaakaar naa ne li mu jeex léegi mu jeex jàpp na tànk ah jël amuloon jël amagul jël amagul Eumeu bëre laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah ñooy waay ci làmb waay jël amul ña ngay ca lamb ji jar na lu ne. dinañu lan doon xaar. Eh, foofu foofu Baba indi foofu. non foofu indi ko xool. foofu ndax dara amu fa. foofu. ah demul tànk tànk bi demul xoolaatal foofu dara ba dem na. ay waay drapeau Alaaji Bekay Mbay waay. yaakaaroon naa ne gaaw. Ah. lam lam bu mën a gaawee noonu yow tam dafa mën a bëree booy bi mën a bëree. bëreegum nañu douze minutes. bu ma la wax kay téere la bekay lu ma la waxoon. damaa doon la ma seen. lay lay la laa. Ibrahima bi. dabal ah yëpp. mun na danaa ma seen. seen jamais bii. dabal. seen jamais bii. dabal sii la ci nu ma ko tegal seen. bi bëri na bëri bi daan na tey mosul bis bu mel nii. Siteu ak Sitor avertir leen ñoom ñaar ñëpp ndax bëgg bëre bu gaaw Gris door na Gris door na Gris dooraat na Gris jël na Gris Gris door na Modou Lo door na ña ngay xeex Modou door na Gris door na Modou door na Gris door na Modou door na Modou jël na Gris na Gris. Repel arbitre bi arrêté na combat bi nee na kat appi na arbitre bi na combat bi nee na kat appi na ba tey jii jigi leewtoo Modou Lo door na Modou Lo daaneel na ko Modou Lo daaneel na ko Modou Lo daaneel na ko lu tax waaw Modou Lo Ama du combat lu tax du doo ko raw ci lu bari ah nañu waxoon dëgg instant moo raw moo raw gàddu gi instant kay keneen la ñuy waat mais Ama Baldé moom. ça va mais Eumeu Sène bi mu yoree raw gàddu gi bu ko bu waxoon loolu est-ce que Modou tey dina yor raw gàddu. mais Eumeu Sène dañoo yoraloon revanche moo tax. moo tax ñu laajaat Modou Ama tamit da ngeen ko yoree revanche ndax da ngeen koo daan ba. Ama day xaar ba ci kanam. kum koo gis ni moom la Modou war a bëree. Modou Lo instant mën naa dem jëli Bombardier sama revanche yoonu lamb la. yow Ama Bombardier taxaw ngay jël Bombardier. Ama Baldé yow ça va non mais dafa kañ la taxaw. gis nga ma ne Ama ak Bombardier ñoom ñaar ñu taxaw. waaw dafa ma daan Bombardier dafa ma daan. faaw am de. yow toogal dëkk fu ma dëkk. garaawul bàyyi nañ bàyyi noonu rek. <laughs> Modou Lo ak Ama Balde loo wax ci combat. man de rek ba géej gi maa la barke El Ama dama koy ñaanal ñaanu biir maa te kontaan nag ak Bekay Mbaye. maa kontaan cum merci Ama noonu naxamu. naas grand bi. yaa am maa ngi sant borom Touba. Modou Lo Ama Baldé laay waxtaanee tey. aman Modou sama mbër de. Fall dafa leer. billaahi woo day neex. day neex mais nag grand contre petit la de. waaw mais man wax dëgg yàlla Modou sama mbër moom. bu ma sañan du yàgg mu wàcce ko xooli leneen. Modou Ama Baldé. maa ngi si Ama. Ama sama mooy sama. gis. du yomb de. combat bi du yomb. du yomb moom. ama xale la. non ama xale la. te moo moo ëpp fuuf mais naa maa góorgóorlu rek incha am. ba tey ci biir ñu let's go. mbokk yi seetaan la 2 si ba tey ñu xamal leen ne yéen a ngi ci biir Bantamba mbokk yi tey ñuy bëggalante ak yéen ba tey rek ci làmb Modou Lo Ama Baldé la ñuy waxtaanee ku baax na nga def. oui ça va nakay ci jàmm sant rek. Modou Lo Ama Baldé. Modou Lo Ama Baldé. ah kooku du combat de. Tamba ba am nga sens. Eh, eh, eh, laay laay siyaar maa lay siyaare. waaw siyaar nañ jarbaat. tons yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi sant tons looy def fii. waaw dama ñëw nu Alizé seet sama booy booy Zo. booy Zo waaw dafa lu ma waroon jox quoi ma jógee Grand Théâtre nag jaaroon fi quoi. waaw. Modou Lo Ama Baldé laay waxtaane tey lu ci sa waaw Modou combat bu métti ngay gis noonu parce que damay ragal Guédiawaye Pikine ak Parcelles la. parce que Ama dafa nekk ñaari côté Balla Gaye te Guédiawaye dëkk. non Pikine la. Pikine ak Parcelles la ah Pikine la Guédiawaye seen yoon neexu si. waaw mais Pikine est kon Pikine Parcelles kon Pikine Parcelles la gis soo gisee Ama yàgg na bëgg Modou Lo soo fàttalee yaa ngi combat mu jëloon euh, sabar teg ko bi. waaw waaw ba yàgg na loolu. waaw kon nag suñu demee ba yàlla boole leen combat bu métti nga gis nag tey dafa man dama gis 50 50. 50 waaw parce que Ama du daw. te Modou Lo xam naa ko tamit du daw. combat du yàgg sax. nga ne grand théâtre nga demoon lu xewoon. grand théâtre man damay préparer benn benn euh, programme bu mag. pour sargal magu démb yi. war a sargal du Ndiaye Rose euh, Pa Samba Jabare Samb. war a sargal xam nga dogo. ñoom ñëpp. en même temps dañuy rendre hommage dañuy dañuy honoré ku mel mën Mansour mbay maire Xaar mbay yàlla nañ fi yàgg euh, ak ak du Seck. ñoom ñëpp dañ leen di invité. Ah, loolu lu la de loolu xanaa loolu loolu culturel la. waaw Pape Boukounta ñoom ñëpp dañ leen honoré ñu koy def le 22. Euh, au Grand Théâtre man ak waa direction artistique. le 22 la novembre le 22 novembre. Ah. man ak waa Nawel Seck ak Grand K direction artistique. ak Grand Théâtre yëpp ñoo ko bokk. def ko mooy première édition nag. ñu bëggoon nag waa deux ñëw fi en même temps damay eh, damay fête sama 50 ans jarbaat. Mm-hmm. ginnaaw suba laay def ans. macha allah waaw waaw macha allah di ko feete ah, di woo tamit ñëpp waa Bantamba ñu ngi la koy souhaité happy birthday déjà avant dara. waaw di ñaan tamit nga ñëpp ñëw parce que dama bëgg waa des daal couvrir programme bi. mais le 22 kon bis la boo xamante ne magu démb ñoo ko moom bu ñu nee Samba Diabaré ne du Rose wax ñooñu nga xamante ne nii culture sénégalaise rek moo leen ñoroon ñu ne dañ ci honoré dañ ciy sargal ki nga xamante mooy suñu maam Xaar mbay dañ ciy sargal suñu papa Dou Seck suñu maam Mansour di leen ñaanal yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg fi loolu bisu Sénégal la tous les hommes de culture yu Sénégal woo nañ leen ci bis boobu ngeen teew ci le 22 2STV dina ci def participation man naa ci def sama participation donc kontaan nañ ci. waaw kontaan nañ waaw waaw sama mot de fin daal mooy yàlla na Sénégal am jàmm yàlla na fi mag ñi yàgg Sénégal am jàmm di invité ñëpp nag du ngeero suñ ko waxee wax nañ Sénégal waaw merci. kontaan nañ ci moom bu baax a baax ba tey ci biir Bantambala ñu let's go. Basir maa ngi taxaw buntu entreprise ñii ay fruits de mer la ñuy jaay eh, booy Siri kaay ay fii lan ngeen di jaay gaan yu eh, jaay ay crevettes ay gambas ay langus ay coof waaw waaw kon ku bëgg paylaa day ñëw ku bëgg paylaa daw sil ñëw fii tarkindaa yi ragaluñ loolu ay tarkindaa ay tarkindaa kese fi ne Ama Baldé Modou Lô Ama Baldé Modou Lô lamb ju nar a neex a ngi noonu Ama Baldé Modou Lô lamb a neex a ngi noonu ay fan su fi nag mais dañuy daw dañuy nañ jël loolu soxla wuñu ama ñun ama tax ñoo jóg ñun soxla wuñu ama ñu waa parcelle rek ah. waaw ko yoon soxla ñun ñuy daas fanaan rek ah. daas fanaan la rek filmel borom lu zone li ndaamali ay sa eh, eh, waxal waay eh, dama lay jël dama lay jël yaay dox fi may liggéeyee dama lay jël mënoo si dara par dama lay jël dara laa la boko oh. lu tax damay dem bokkuma bëgguma feeñ bëgguma feeñ amoo mbër amoo mbër yow Ama Baldé xamoo yàlla bu ma xam Modou Lô nag moom laa xam Modou Lô waaw waaw Modou Lô Ama ma laaj eh, eh, eh, laaj père Modou Lô Ama Baldé ah, Modou leer na wala leer de mu la maa bale waaw. combat bu jaadu la. waaw bu jaadu la nekk la waaw. Eh, eh, eh, doo def naa ko yow lan la la ngay klaxonné mbëkk ma bàyyi mbëkk ma yow bàyyi suñu yaay a ngi nii yàlla na sa jàmm yàgg guddal fan papa <laughs> pépère Ama Baldé Modou Lo sa ñaari doom yooyu loo wax ci combat boobu. ah lu ma ciy war a wax ñoom ñaar samay doom lañ que le meilleur ndax Modou Lo sama doom la Ama sama doom la mënu ma am fenn fu ma far ñoom ñaar ñëpp ba samay doom lañu. papa Ama Baldé Modou Lo. laa ilay combat ngoog combat bu nar a neex. jan mhm. koy fekkee jàmm ak salaam et que le meilleur gagne. seeni faral <laughs> ama ah, eh, la faral ama la faral jëru nga boobu ama la faral eh gaan <laughs> eh, eh, doo def nank ñu ñuy jël baan baan firma firma firma Ama Baldé Modou Lo booy man du ma seetaan sax làmb. mais mais xam nga leen. waa xam naa jaadu na waaw jaadu na jaadu na. dama leen di jox xale bi nga xamante moom mooy sël bu ndaw ñu koy wax Ama Balde maa ngi jégalu ñu koy wax Ama Balde. Karajo Ama fi mu tàmbalee ba léegi nii bégalee ko gars yi ñu dox acca les ko 20 millions baa ngi noonu. baa ngi noonu xale yi Pikine jóg nañu Macky sotti na ko biteel ñu ngi dox di dem ñu ngi jox di dem ku ci yàkkamti yàq sa làmb ci ñoom ñaar abaab Balla dem na bay dugg duggul dafa dóor Balla dem na bay dugg duggul dafa dóor. mu bañ a mer mu bañ a mer Ama Balla saa wu mel luy dugg dugul. Ama jël na tànk ba Balla bañ na. Ama takk na ko Balla bañ na. takk na ko Balla bañ ah. na. Ah, yëkkati na ko. door ci mu bañ. door na ko ci suuf. doole. bëre doole bi raay. daan na ko. Ama Baldé ngi noonu. oh Bakary. loolu da ngaa xool Ama Baldé. da ngaa door na ba xalam daw na di jël. ama jël na ko na di jël ama jël na ko. jël na daan na ko moo ko ëpp doole. moo ko ëpp doole daan na ko. moo Sam Lamine Samba. Fagala doon na door ama jël na ko. Fagala ama daan na ko. Fagala ama plaqué na ko daan ko. oh là là. dafa yomb sax. oh ëppate law. dafa yomb sax. ëppate law. dafa yomb sax Zoss Ama Baldé Ama Baldé jël na tànk Zoss Ama Baldé jël na tànk ba Zoss bañ na Ama Baldé Ama Baldé daan na Zoss jigéen Ama Baldé Ama Neex jël na Neex jël na daw na jël na fiir na Ama Baldé bañ na Ama Baldé bañ na yenu na ko Ama Baldé daan na ko Ama Baldé daan na ko Malick Niang Malick Niang Ama Ama bi muy dox Balde laa ilaaha alaaj bekaay sama xel a ngi ci yow ama a Tafatine sànni na góos ama ak Tafatine ñoom ñaar ama jël na tànku Tafatine tëj na ko tournoi bi xale bi jël na pré ci tournoi bi arbitre bi sifflé na mbokk yi Ama Baldé Papa Sow ñoom ñaar Ama Baldé nekk sunu ndeyjoor Papa Sow sunu càmmañ moom lan Papa attention Ama Baldé sànni na moom ak Papa Sow attention Ama Baldé ngi toog ci kaw Papa Sow Papa Sow sànni na moog Ama ñi xeex Ama Baldé Papa Sow attention Papa Sow Ama Baldé Ama Baldé lu mu day daan Papa daan na ko jëli bi rëy na daan na Papa ba toog ci kawam bi non la ilaha le grand Mbagnick Ndiaye maa ngi koy nuyu le grand décorateur am na looy waaj de am na looy waaj de ah noonu la demee di ñaan yàlla gars yi ñu booloowaat Ama Baldé ak Modou mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ne loolu la ci nit ñi wax combat boo xamante ne dafa war a am dafa jaadu fii làmb tollu combat boobu moo mën a jaay làmb Ama Baldé ak Modou am Ama Baldé bi mu dugg see ci làmb ak léegi yàggul waaye ndax xale yi mu bëreel ñi mu daan ku leen daan bëre war a ki fi mën ci làmb fi mu jaar dem ba yegg ci sës ba nag yaa war a tendre la perche maanaam may chance xale yi nga xamante ne ñoo nekk sa ginnaaw te loolu mooy li nga xamante ne moo mën a doxal làmb loolu mooy li nga xamante ne moo mën a neexal làmb bombardier bi mu bëre yow dalaa mayoon chance waaw dalaa mayoon chance bëre ak yow ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii am na ci làmb kon na na na ñu tëgg làmb ji taxawal ko su ko defee. wax dëgg yàlla làmb mën a avancé mbokk yi di leen kontaanee di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a di leen jox dig daje mardi bii di waaye balaa maa dem ma bëggee sama ko kooku Sofi Sarr 45e promo de l'école nationale de police maa ngi koy bëggee bu baax a baax borom Samba Dia maa ngi koy siyaare bu baax a baax di kontaan ci moom chéri El Hadj Ndiaye ah El Hadj Ndiaye borom Dia wax dëgg yàlla nekk koo xamante ne nii nit ku baax la góor yàlla la yàgg naa leen ko wax champion la. nit ku baax a ngi noonu di jàppale jeunesse su Sénégal nag di leen jëlee fii Sénégal di leen yóbbu à di leen jàppale loolu nekk mbir yoo xamante ne nii yu am solo la El Hadj maa ngi lay kontaanee mon frère saa yu may wax ci yow sama xol day sedd di la béggee bu baax a baax mbokk yi ci biir Bantamba la woon Sidi mooy le monteur le réalisateur le caméraman le le téléspectateur <laughs> xaa Sidi kon mooy Bantamba Sidi lañ tuddee Bantamba mbokk yi Karajo mu dellu na ci montage bi moo du Mbaye nekkoon ci waxaas bi. télé téléspectateurs yi ci seetaanage bi kon di jox dig daje mari bii di ñëw incha allah bu fekkee suñu oto bi génn ñu commencé reportage yi bu fekkee ne oto bi génnagul ñu continuer micro-trottoir yi ba oto bi génn incha allah c'est le bantamba c'est le balaa maa tëj père père bul xuloog man per per bul xuloog man. ñetti mardi ñetti mardi ñetti la. jàllale ma waxal ma ko ñetti mardi jàllale ngeen Ama Baldé jàllale ngeen ma Boy Niang Modou Lo dem na ñetti yoon maa ngi lay ma Tapha Tine. Ah, Tapha Tine mooy sunu gaynde Bawal gi. mardi bi di ñëw karaajo kon ñu préparé spécial Tapha Tine incha allah ci la 2STV ci la 2STV mi ngi nuyu maa ngi nuyu Ibrahima Tine réew Mawo un des proches de Tapha Tine di leen kontaanee c'est le Bantamba maire. moom Modou fu mu jaar ama jaar na fu ko raw. amoon na combat bu ñu ko tuddee rek xool day sedd ginaar yi moom la ñuy sabee géwél yi moom la ñuy sabee indo yi njaago yi moom la ñuy sabee lool day neex mais nag naa la xamal leen de Modou Lo xiir gi da koy dal de. billaay wallaay taala mais Modou Lo yëngaluñ barki Serigne Touba Mbacké maa ko wax dëkk Pikine tali bu mag première France Ama Baldé man la. du Modou Lo nee xiir intéressé ko. billahi wallahi taala bu jour avance su ko dugalee benn coup dina ne maa juumoon taw sa xiir baa ngi fi de xiir baa ngi fi ñu denc ba léegi nee daw nee na dawkat saret la woon ndax nee na caw sa xiir intéressé ko billaay caw sa xiir dina ko intéressé xiir bi dala dal ah mafia bi ku si bokkul xiir bi dala dal Modou Lo ñoo ñuy ñëw xiir bi dal saa kawo combat Ama Baldé ak Modou Lo combat du ko lu war a mën a nekk la ñëpp ko soxla Sénégal yëpp ko soxla Parcelles Assainies laa dëkk su ma gisee ko naan nii nekkul combat parce que Ama nekkul match Modou Lô man damay jàpp loolu ay dóor la rek parce que Ama tey fu mu yegg bëre moo ko fa yeggal instant bi bu fekkoon dañuy jugé ci bëre Ama war na mën a bëre Modou Lô ci yoon. Modou Lô man gis naa ni làmb ji képp koo xam ne yéen a tolloo catégorie mënoo ko mënoo koo sonal ci lenn ak ku mu mën a doon exemple bi Eumeu seen joxe na ko saa may dégg Ama Baldé Modou loo ñoom ñaar yu mu dina dina dinañu dinañu daje quoi mais moment yi ñu toll nii làmb booleegu leen mais ñoom ñaar bi bu ñu dajee làmb ju neex la mais wóor na ma ni Modou loo da koy daan. ak Ama ni ma koy gisee mu bëree ko ci bëree Papa Sow bi su ko bëree ak Modou Lo Modou loo daan ko. bon de toute façon ñun moom. xamuñu côté Ama Baldé wax dëgg yàlla mais xam nañ ne ak promoteur bi ak moom accord. Mhm. donc mu desoon ci Ama Baldé. Mhm. léegi nag on sait pas exactement lan moo ko bloqué ak Ama mais xam nañ ne daal bon comme Ama depuis loolu mu doon wax naan Modou rek la bëgg. Mhm. ah te Modou joxe na accord am yaakaar naa ne waratul tàggat ci moom. ci li ñu yaakaar ah mais bon ñun nag amuñu suuf si boobu nga am. waaw ñun daal bi ñu xam daal mooy suñu côté. c'est. suñu côté moom côté côté Modou moom. c'est. c'est ok. tout est ok. d'accord nañ. d'accord nañ mais amaguñu nag euh, concrétiser wuñu mais ñun d'accord nañ. am nañ accord ngeen accord de principe. li mooy am nga combat moom balaa nga kaa ficelé il faut ñaari parti yëpp d' accord. nga bëgg moo la sonal. dégg naa ci mbapat mos nga see tase ak Ama Balde. ah daje nañ loolu sax du ay mbappatu kii boobu fekk na dëgër nañ ñoo ngi bëre bu baax. Hmm. boobu ma dama bëre ak Balde ci suba sax ma bëree Xaalim Diallo boobu maa ngi bëri arène. yaa ngi bëri arène. yéen seen mbapat boobu mu demee woon. mais dañ ko fay fay moom terrain église loolu waaw ñu bëre ma daan ko. ah moom waxul loolu de daa mel ni. ah kon de wax na leneen parce que waxul lool de wax leneen. wax dëgg dañu bëre ma daan ko ah combat bi yàggul sax rek. gis nga man ay une minute ak yooyu. Mm. Euh, ah, ñëpp ñu fi kay terrain église la woon. Mm. Eh, ñoo ko tëggoon. yéen ñaar mu daan la ci une minute. non wala tiers sax. moom moo dañoo daje mu daa am siège arbitre dafa arbitre dafa yëkkati sa waaw dafa wàccee loxo rek euh, xam a am importance si àdduna mooy ñii di ñii di ma seetaan nit dangay respecté nit ñu lay seetaan parce que tey nit ku lay war na ko mën a wax luy dégg luy luy lu muy dégg bu tëddee mën a nelaw waaye tey muurloo tey kon lu ma lay bu man nangu naa ne sama carrière damay dem seet lii ak lii parce que lii ak lii moo ma arrangé. ñu nangul ko ko man mun naa ko nangul waaye pas man ak am tolloowuñu wala egg egg ma fa am egg loolu bu koy wax sa amateur la dégg xam ay wax mooy mooy wax ku ragal rek kon nu ma koy waxee ni moom bu la ragalee ragal na du la mës a ñeme sa live. Modou Lo da laa ragal. ñemewu moo tax du ma mës a ñeme sa live. mais li ma mën a wax mooy moo Modou gisuma mbër bu mu munti duma fii daan ko duma koy pare daan ko. Ama Baldé ci lañ nekk rek nga ni nga ni maay mbapat mbapat boo xamante Ama nee na boobu xamul luy entraînement nee na Malaw moo ko defar defaral 30 t-shirt ngay ñëwaat fii naan maay mbapat. mais mais bu fekkente ne loolu kii ko woon mais moom moo koy fàttaliku daan am moom moo koy fàttaliku kon xëy na loolu da ko métti daf ma naxoon boobu ngaaka ay kii ça veut dire kon am na lu mu téye ci loolu moom moo koy fàttali sax ay moo dog yooyu loolu mbapat la ku ne jaar na ci mais ku ne da nga jaar aussi ba agsi ci kaw. nee na yéen ak moom règlement de compte la même Modou bu demoon bay doxee beeke sax dana ko fekk fii parcelle nangu beeke daal. loolu waxu mbër la rek xam nga mooy boo buggee bëreeg mbër bi topp ko aussi yàgg na fi am gis nañ fi mbër bu topp mbër di ko topp di ko laaj bi ñu boole mais lu ne ngay wax pour combat bi am c'est que da ngay da ngay comprendre allemand nekk ci rôle am quoi rôle rôle kii am la nekk. bëgg combat bi. bëgg bëreeg Modou parce que sañ am ngi ci ay trop sañ na ko. ndax Jules Baldé nee na xiir bu sew bi lañ leen àndal dencal leen ko. dégg guma Jules Baldé wax ko mais bu fekkee ne ju <laughs> bu fekkee bokkoo sa micro xiir boobu xam nga fu muy mujjee. waa Pikine ne koy jël di ko dóorante si biir wala ñu war ñu ñoo ko ñu jàpp ko moom di ko dóor naan nga waxoo ñu woon lii. waxoo ñu woon lii. ca ci ñoo koy ñoom seen la koy dóorante ba Pikine. ñoo bu ñuy nee xiir bi. bu ñuy nee xiir bi seen seen bopp lay mujj. am naa yaakaar ci kàttanu yàlla d'ici trois jours ou quatre jours bu soogee dinañu sebaral li nga xam ne lii mooy signature de contrat yi nga xam ne moom la ñu war seq ñoom ñaar ndax am na yaakaar ne lépp loo xam ne lii rek promoteur baa ngi ci taxaw yaakaar naa taxaw na ci kéemtulaay kàttanam te jàpp na ne am na combat ñu nit jàpp nañ ne war nañu am combat xëy na Modou Lo ñoo tasoon rek naa di laaj ay deux cent cinquante yi yooyu waaye yaakaar naa yooyu génn nañ ci ndax combat la boo xam ne bi Sénégal la ko bëgg waaye comme Sénégal ko bëgg ñaari mbër yi amuñu droit refuser combat boobu ndax combat la boo xam ne bii maanaam ndam lii du génn Sénégal ñoom ñaar la booy see sax ñoo bokk keppaar gi ñu bokk ñoom ñaar ndax bul fàtte ne boobu mu nekk noonu ci écrit bii la génnee kon ci li gën a rafet ñoom ñaar war nañu mën a bëre ci kaw yi ci yoon kenn du perte kenn du gagné loolu daal xam naa ko. mais décliné delloo avance su Tapha jël bu Modou Lo est aussi ba. non Tapha Tine jëluñu combat avance waxtaanoon nañ ak moom ak promoteur bi xaj na waxtaan yi jotul noo yegg a 100 pour cent nit ki euh, ñëw woote ne ñëw leen jël avance bi bu ñu bi ñu xoolee it amuñu woon droit jël avance ca booba. ki jógoon doon dem di jël avance ñu ne ko non arrêté ñu xaar ba seet ba xam lan moo waral lii wax am fii beneen wax génnaat ñu waxtaan réglé guñ loolu bala ngaa dem di jëm nañu xaar ba xam loolu rek la mais jotuñoo jël benn dërëm kenn jëluñu mos mos ta jëlal kenn xaalis. ba fi mu pneu de corde nii combat bi ñuy wax nii jotagul xaalis. jàpp nga ne Ama mën na dara ci Modou Lo. loolu du loo daanaka wax ju yàqul la rek waaye xam nga ne mbër moo xam ne bu ngeen yéegee ci basket doo ko waa ëppoo ko mbooloo boo ñëw ca làmba ja boo xefee doo dugg doo say nit duñu yéeg lu leer laa wax département Pikine ñu bokk ci département yi ci Sénégal. ku ci mel ni Ama tey euh, nit mënatu koo bañ ci làmb. baw ma kuy takk ngemb Bombardier Yékini Balla Gaye Modou Lo Euh, euh, Lac de Guiers yaa ngi may dégg Gris Bordeaux kenn mënatu koo bañ parce que benn toll na ñoom ñoom ñëpp dañuy dox circulation bi macha allah dañuy daje dañuy gisante ñoom ñëpp a tolloo ama kenn ëpp ko ci benn ñaareel ba la ñuy duy ci stade lay duy ñetteel ba la noom ci cumbukaay la am mais man ban problème laa am mooy mooy caay-caayu Modou Lo ci biir seen ñu tëj barrière yi génn ngeen war a jàkkaarloo. lamb ji ngeen est-ce que Ama en réalité attan na booba caay-caay est-ce que xam nga yéen lamb ji. booba caay-caay booba caay-caayu lamb. ko bëgg a tëggee yéen. lamb Ama Modou Lo fi ngeen ko bëgg a tëggee. bu ma comprendre mais booba caay-caayu lamb Modou Lo dafa garaaw. Modou Lo dafa beneen mission la kooku ci biir scène. ndax la muy wane ci face to face la muy wane ci la nga xam ne mooy li muy dund biir këram ak la muy dund ci mbedd ba bokkut ak la muy wane ci biir làmb mm-hmm. nit ku doy waar la. waaw ñu lay intimider. <laughs> waaw daje ci kii nit ku yéeme bi noonu. waaw ah, xam nga loolu yëpp bu weesoo maa ngi déranger maa koy déranger. Mm-hmm. Mm-hmm. ah waaw amaana ah, taxaw na fu wér. xam na amaana ah, fu wér la taxaw tey dama lay jox exemple man boog man. waaw man boog. Mm-hmm. jàmbaar yàllaa koy def su doomu dëgg la waaye man Malick Niang. ba mu koy jël dama ko. jël. <laughs> Modou gi nekkul noonu. nekkul yoonu làmb ma war a jël sax Malick Niang. waaye dama gis muy déranger. dëgg la comprendre ma ne xaaral ma wàññeeku jël ko. Modou Lo bu doon jàmbaar bu muy woote. Mm-hmm. maa dérangé boo bëlee maanaam ko aywa mais na ko lu jënti nit mission day ñëw effacer trace ba pare dem jàll si leneen. Mm-hmm. man nangu naa su ma eggul woon si Modou Lo su ma eggul woon catégorie boobu du ma ko laaj. parce que yegg nga fa wax solo mm-hmm. yegg nga fa moo tax bu ñu naan Modou Lo xarañ ak yooyu yëpp. lu si munti am ànd ko mu kaa teewul ne xeex la fi indi seetaan na rek xeex la fi indi. xeex la fi indi. ñun xeex ñii dañuy am problème sax ñii xoolal. gis nga mbëkk na ko. jeex na lii dañ ko war a intervenir mbëkk na ko. lii lay indi affaire bi lii lay bien sûr affaire bi lii lay jur rek léegi gars yi ñoo jàpp leen yóbbu leen mu jeex. final bi est-ce que dana am sax. sëriñ bi ne yàq nañ match bi est-ce que dina am. sëriñ <laughs> bi. Lac de Guiers ak Papa Sow mbokk yi Papa Sow attention Lac de Guiers jël na Papa Sow bu laakee na ko daan na ko. Lac de Guiers Alioune Mbaye Nder mi ngi bañ Alioune Mbaye Nder eh, eh, bi wàcce ko wàcce sa bi Auguste gi yow Bruno la ilaha illallah waaye xale bi la waaye waa Kër Ronaldinho fecc leen